so tey jii ñu daal di génn ginnaaw euh, journée sans presse bi nga xamante ne ni ñu ngi koy amal ci biir euh, réew mi saa ñu gis tey ji ay journaux yu bëri euh, génnuñu mu mel ni la nga xamante ne ni waxoon nañ ko amal nañ ko yenn sax yoo xamante ne ni gën nañ ci fees bokk na ci La Tribune L'Observateur Quotidien ak yeneen i journaux tey ji bu ñu toogee réew mu toll ni Sénégal ñu xëy ñu def journée sans presse est-ce que duñu remettre en question mbirum démocratie. non démocratie mënoo ko wax parce que ndax da ngaa gis ñu def journée sans presse fekk ne dañoo dem tëj. Mhm. benn këru liggéeyukaay. Mhm. yaakaar naa li leen jotale mooy li yàq démocratie mooy yoreel bañ a mhm. am ci ñoo xam ne li ñu dajale ba fayuñu lan nga ciy gisee léegi yow bu dara doxut. bu paj mi doxut. wala courant bi di coupé. wala ndox mi di coupé lan moo ko waral. lu war a tax nit ki war a xëy génn kaas parce que yaa ngi fay impôt yaa ngi fay taxe nekk ci réew maanaam di teg li ñuy wax cotiser. Mm-hmm. xam nga nit ñi dañuy jaawale cotiser ak tontine dañuy jaawale teg ak nat mm-hmm. waaw mbir mi teg la. Mm-hmm. léegi yow sa morom tegee. sa morom yëpp teg ndax luy doxal réew mi. nga bañ a teg rawatina la nga war a teg eh, lay ay nit teg nekk say liggéeykat nga ne ko fuuf bañ koo joxe. waaw léegi ñu daal di taxaw ne la fayal. Hmm. nga taxaw ne da ngay kaas am na ñoo xam ne kaso lañu war a jëm faatu. ci ñan koo xam ne bu ñu ko vérifier te gis nga euh, pôle judiciaire et financier bi hmm. loolu sax bokk na ci li war a jublu parce que loolu détournement la xam nga du ministre bi mooy détour euh, directeur bi mooy détourné rek wala daas bi wala nangam. Hmm. mais nga nekk patron de presse it. say liggéeykat nguur gi maanaam régime bi jotewul ci ñoom. yaa leen jote saa yu nekk ku ci nekk yaa koy fay. kon recouvrement boobu nga wutu nguur gi. boo recouvrer mais da ngaa war a verser mi ngi mel ni agent impo bi dem recouvrer ba pare verser wu ko dem lekk ko ab sàcc la. yooyu boo nekkee patron de presse yaay fay faatu yaay fay Cheikh Anta yaay fay yaay fay. jël ci ñoom ay cinq pour cent joxe woo ko loolu nu mu tudd sàcc la versé wu leen IPRES loolu sàcc la. Mm-hmm. impôt sur revenu nag buñ ci ñëwee it boo deful bénéfice duñ la ko laaj gisoo kenn koo xam ne deful benn bénéfice léegi yow boo defee bénéfice jël bénéfice ba jël pep jël pebet dem defe ko leneen jënde ko daamar bu rafet. Mm-hmm. loolu it ba tey nu mu tudd. te yow def nga ko def nga ko ci dëkk bi nga def fi ay bénéfice mhm. nga bañ koo joxe loolu nu mu tudd ba tey mënoo koo génnee ci détournement nga dem jënd nit ñëw ci yow ne la defal ma publicité. Mhm. fay la un million. Mhm. un million boobu nga dolli ci cent quatre vingt mille francs ne ko da nga ko ci dolli ndax état daa wax ne na nga ko ci dolli yow defu yow wàññiloo ko ko de moom moo ko ci dolli ne la joxal ma état. fayal sa 1 million waaye sa 1 million nga moom loolu buñ ko lijjantee ba xam ne yow loolu nga yore ab sàcc nga faatu ci mboolem côté boo jël rek ku ko ci yore ab sàcc nga. te sàcc kaso la war a jëm. suñ ñëwee ci euh, TDS. maanaam te division di Sénégal ñu bëri sax dañu yaakaar ne télé la mooy bi soxna Aminata Sarr yore. Mhm. Euh, docteur Aminata Sarr te docteur Nafissatou Diouf yore woon ci Afrique yenn dëkk yi six million deux cent cinquante mille la ñuy fay par weer mm. at mi nekk soixante quinze millions Sénégal biñ ko defaree biñ ko defee ba noppi ah trois million lañ doon laaj ba mu mujj yéen génn négocier ba ñu wàcc ko ci jamono ba muy un million un million wax dëgg yàllam yomb na yàlla di moment où bu njëkk danga nga daan def say émetteur foo koy def mhm. bi ngeen di nekk euh, tertiaire yaa ngi dem ba mooy télévision terrestre mhm. yaa ngi dem ba ca taax mële immeuble Kébé boo demee immeuble Kébé luyee imobul bi danga nga daan seen ay ay ay ay antennes yu bari immeuble yooyu nga boobu nga luyee teg fa sa antenne sa matériel yenn saa yi picc tàgg ca wala mu xaw a dënnu gi laal ko lan ngay def mooy yebal ay technicien yoo xam ne yaa leen di fay ña fay dem di fa intervenir rek soo xoolee li ngeen leen di fay wala nga dem ba ca toj euh, wala ca euh, kii toglu montagne boobu nga dem def fa say émetteur te du yam foofu feneen fi nga war a couvrir Tamba soo bëggee ñu di la fa seetaan da dem ba foofu def fa boori Touba nga def fa. waa léegi bu fekkee danga ko faa def la nga koy entretenir dana ëpp loolu ñu dem ba dugg ci euh, soppiku jamono léegi yow TDS télévision du Sénégal. ñoom ñooy def benn émetteur yéen ñëpp ngeen jàpp ci. ñu dem ba Tamba def ko fa demaat fële def ko fa dem fi ñu ko war a couvrir yëpp léegi nag yow da ngay toog rek yow say locaux di diviser. mu ngi mel ni yow li la YouTube defal nga koy publicitaire. waaye fii dangaa gis ne kon bu boobaa ah euh, kii moo la ko defal TDS. defal la lépp assurer production bi ak transport bi. Mm-hmm. yow dangay toog rek dawal rek daal di sànni waa lii bu yombee nit ñëw ne la defal naa la ko at weer wu jot un million nga may fay at mi douze millions nga téye ko ba mu mat at waaye amoo woon yéenay fay. Mm-hmm. ñu ñëw defal la. waxtaan bind la courrier tontu woo leen defal la mise en demeure nga génn porte presse di jaxase askan wi nangam di wane ne dem ba naan kii li fi doon liggéeyee moo tax mais daan ko liggéeyloo mooy moom ba ci lan danga ko daan liggéeyloo mu mu def yi njàngam prouvé mhm. ba am doctorat nekk docteur mhm. génn dem jiite kër goo xam ne moo jiite ñëpp comme ni ñëpp di def boo yegsee li ngay njëkk def mooy def état de lii gis ne 7TV fayu waaye ñu binduloo ko nga bëgg a porter xam nga nag ñun askan wi dañoo bu ngeen buñ grévé ba pare <laughs> ñun dañoo war a grève ñun. ndax dañu ah yow fayoo ñu di lii tax ñun ñu dund lii tax ñu dund yow li liñ ci amee participer woo ci yow maanaam <coughs> wax non seulement sax impôt sur le yi boo ko versé wul ba mu mat. Mm. mais say employé yi nga xam ne nangu nañ ku leen dagg parce que bi nga leen dagg ñemewuñ ko xaalis la. Mm-hmm. deux cent mille nga gàddu dix mille yi mën na dara wala tey ki nga xam ne dafa ñëw def publicité ba pare teg ci cent quatre vingt mille ci un million bi wala quatre vingt dix mille ci cinq cent mille bi mais kooku dafa fay nga ne ko dëndeex teg ba pare ñëw naan. Mm. négociation baatu négocier. mais lu tax xam nga bu dee gis nga ñoom. Mm-hmm. yàlla xam na ne bu ñu doon grève teg ko ci yoon man waxuma sax askan wi mais seeni employé ci boppam. ñoo njëkk a taxaw tey jàpp ci. déggoo ñu mel ni comme ku mel ni Maodo Faye démb. Mm-hmm. nee na bu xëyee dana liggéey kenn ko waa boo liggéey see te liggéey mu ne ma xam ne kon condition yi tax ma liggéey amu fi ma doog a dem ñibbi. Mm-hmm. waaye li warta war mooy moom bi mu xëyee dara day ñëw liggéey mm-hmm. léegi ñu ñëw ci li jar tëj maanaam journée sans presse. Ah, ñu jàpp journaliste boo xam ne la mu def amul dara lu mu laal lu ñu tere tey ci ci armée secret défense mu bind ci ñi ñëw xëy jàpp ko mhm. loolu jar na def journée de la presse wala lu mu mënoon def ñu jàpp ko di ko bundu xataal mhm. maanaam wér gi yaramam su mhm. mu war a dem faj yu ñu lànkal ko ko ba jeune reporter yi wàcc jamono boobu am na ci maison presse yoo xam ne dañoo lànk ne si am na ci ñu wax ne sax seen ay journaliste suñ demee ca manifestation ba ñu dàq leen fii la mm. xew Sénégal maa ngi wax Pape Alé de même que ci Pape Ndiaye mm-hmm. waaye gis nañ fii bi Sonko di am na kii bu amoon journaliste bi génn nga naan kuñ fa kuñ fa gaañjaay perte toog leen seeni kër njiitu mm. seen pix xam nga loolu yëpp fii lañu fekk ñu xëy tëjandoo ñaari kër këri caabal maanaam ñaari euh, presse maison de euh, këri journaliste Sen TV Walfadjri man saa wolof day man may seetaan sama kër bokki sama décodeur ñëw déposé ko Walf ne leen fekk émettre leen waaw TNT bu Walf amul soxlawuma ko forme de lutte la am na sénégalais yu ko def comme man mm-hmm. mais yooyu yëpp gisuñ la nga def journée sans presse àtte bor ak fay yow ñëwoo leb ne ba ma am sàngam ak sàngam mais dañ laa jox ne la joxal ma état nga nga damm ko sa poos yow demoo kaso taxaw fii di rey ni ñee ki wax xam nga tey soxna ab sa aan toroxal ko waali bële ca seen Sénégal set moom am na fulla moom ñëw rek persécuté ko buux ko mu ne ko grand loo may buuxee continuer reportage am moom di di reporté la muy di reporter lu neex am na koo xam ne Moussa bu IYAT TV dañ ko dóor ci R4. Mhm. fii toj mu taf. yooyu yëpp nga koy gis seen naataango bi nekkoon fii euh, soxna si doon liggéeye fii. Mhm. Euh, takk der yi kii ba ñu ba oto bi jaar ci kaw mhm. ah ñi koy ñëw di ko jàppale ñu di leen gaase loolu gis nañ ko fii. d'accord gazé lee entre en en en tant que lu ñuy wax gouverneur. Dakar waaw gazé la presse. fii ngeen taxaw seeni nattangooy tubaab yu xonq cur ñëw fii bu police yi taxawee di négocier ak ñoom yéen bu ngeen jegee ñu duma leen waaye lii jarul woon journée sans presse <laughs> journée sans presse nag mosuma ko li fi Macky Sall di nekk yëpp mosuma ko gis gis naa ko su wàdd gis ko suu joomaay mm-hmm. ah convention suñu reporter mosuma gis Macky Sall recevoir leen su amee nañ ma wax waaye man mosuma koo gis mm-hmm. fenn pourtant Wade recevoir na leen joomaay mm-hmm. recevoir na leen voyez fi ngay xool maanaam njiitu réew yi ñu am kee daal dana dayoo patron de presse yi loolu sax mooy complot lu ñu war a fay ñu bañ koo fay dem nag ba uh, wéet ñàkk jom maanaam tey te loolu jom fekkewu ko mooy nga yoreel sa réew nit ñi di codiser cotiser euh, pas cotiser sax waaw nit ñi di cotiser nga bañ a cotiser loolu rek dèjà ñàkk jom la mais li nga xam ne moom la ñu war a jox waa réew mi ñu war koo dundee nga damm ko def ko sa poos ngay taxaw dafa am ci réew mi réew yi nag àdduna bi loo xam ne suñ la laalee maanaam ñu bundu xataal la nga am loo bind ak noo ko bindee mm-hmm. suñ la ci jàppee am na réew moo xam ne loola liberté la fa kooku mën na laa jàppale. dem ba ci même euh, li ñuy wax secret défense sax soo ci bindoon journaliste bu nekk Canada mën na laa jàpp parce que ni ko réewam gisee ak ni ko sa réew gisee kii waaye am na loo xam ne mm-hmm. benn presse ci àdduna bi du la ci jàppale mooy fayuma imp àdduna bi yëpp ñëpp dañoo jàpp ne ab sàcc nga dañoo jàpp ne ku ñàkk jom la moo tax danañ ci néewi jàppale <laughs> d' accord euh, kon tey jii bu ñu gisee yenn analyse yi ñu jàpp ne sax euh, benn combat boo xamante ne ni ñu ngi ko.